Yo, Allah Sure, Yo, Red, Ah, Madhu Jagada. moo bu rëy moom moo bu rëy waaw Amadou Dekkal Dekkal neex na leen Amadou Mame Diop neex na leen Aliou Badara Diop neex na leen waaw koo xoone li ma jaaxaloon mbëggeel su mettee daf may sotal ñi dañu lay reetaan bu loo bañ mi weex weex weex yi budul woon na mi di jaam ànd yëppay neex ñaar sunu ko desee mooy du wax waaw waaw boo xoolee kuy waalo waalo waalo waalo waalo yee jug monsieur le ministre fi sama jigéen day wele jeexalee laay jëlee président Macky Sall moo ma dugal ci politique ba tax na bi ma ñëwee fii ànd ak ñi ànd ak président Macky Sall ñu jël ndam pour président Macky Sall ci Ross Béthio ku jël ndam président Macky Sall fii ci Ross Béthio su àndee ku bëgg a jàppale président Macky Sall ci Ross Béthio moo tax Bekay Diop plus Mansour Ndiaye plus Faly Seck égale victoire assurée du président Macky Sall fii ci Ross Béthio man président Macky rek moo ma ñor ku ko bëgg ma bëgg ko ku ko bañ bu ko bi loolu weesoo monsieur le ministre nga may ma ma nuyu sama naataangoo yi ci teew ñëpp mais nañ ma jéggal ma bañ a parce que wóor na ma ne dinaa fàtte ay nit képp ku fi nekk rek am naa cofeel bu rëy ci yow parce que ku ci nekk rek ni président Macky Sall mel ci sama xol non le président Macky Sall mel ci ñoom waral du dara barki vous avez entendu tous dans la presse 300 milliards plus de 300 milliards ñu nar ko d'électricité électricité la pauvreté au Sénégal dans le cadre du MCA kenn kenn mënul wax bi ci président Macky Sall ñëwee ak léegi ban denrée de première nécessité moo fi yokku ceeb bi ci nekk 2012 ba léegi kenn gisul dërëm bu ci yokku gaz bi diwlin bi suukar si lépp le président Macky Sall assuré ba dara yokkuwul ci dundinu waa Sénégal. kuy wax dëgg rek xam na ne. ndox mu daan tuuroo léegi yokk na ak doole barki démb maa ngi waxtaan ak suma benn xarit muy directeur u Sénégal Fall ma ne ko juróom benn weer ci ginnaaw juróomi weer ci ginnaaw lu nekk ñu ko doon dégg ci ndox mi waaye ba ngeen ko saafarawee déggatu leen kenn wax na leen a jaaraama ma ne man tey mag sama mbokk Haalpulaaru Ross Béthio danañu taxaw ànd département Dagana wax monsieur le ministre soo demee nga ne président Macky Sall a jaaraama ni mu réglé problème mu ndox Ross Béthio ndoxu Sénégal noonu mu réglé problème réglé problème mu effort e. ba fépp foo yeewu ci Sénégal ndox bi fa tuuru programme yëpp man mi nekk ci nguur gi gis naa ko xam naa fu mu toll am na yoo xam ne monsieur le ministre dinaa la bàyyi nga xalka sa bopp waaye du ma jug ci di la gërëm di sama mbokk alpulaar taxawee ne dañoo bëgg a meeting te dañoo bëgg a monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo présider ko ba ma la ko wax ma ko accordé la ñu ciy dox di ci nga recevoir ma recevoiraat ma mais li ma ci gën a neex du loolu ma ci soo waxaale sama soxla xëj na nday wele yëgul loolu tout xam naa ne di ko def parce que xam naa sa cofeel bu baax ci président Macky Sall ñu def lépp pour que suñu mbokk Haalpulaar yi nekk fii ci Ross Béthio dootuñu jooyee ci ndox dootuñu jooyee ci courant dootuñu jooyee ci piste càmm ji day jëm kanam mbay mi gën a jëm kanam parce que wax dëgg yàlla xam naa ne président Macky Sall loolu la ñu sant ñu ñëpp. te it xam naa ne lu ma la ñaan loo ci defu da nga ko mënul loolu daal moo doon suñu waxtaan tey maa ngi gërëm ñi fi ñëw ñëpp di ñaan ñëpp del ci jàmm di wax nekk soo demee waxal président Macky Sall xaw ma fan lay jaaxle demee département Dagana mën na jàpp ne du fi am benn jafe-jafe dina ci def ci war yëpp ba duñu ko gàcceel ndax lam ñu defal mënuñu ko koo fay ñu ngi leen di gërëm di leen sant di jox di daje ci beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu mon de Ross Béthio di nuyu Mansour Ndiaye président Dolel Yaakaar ah di nuyu tamit wax ngeen ne seen xalif général des de Dagana waaye man mi en tant que maire suma xalif Moi le maire Omar Ngouler Sow maire de Jama maa du koy je suis le maire de Ronk Ahmad Tidiane Ndiaye le maire de Mbane mon frère muy Dembel Dembarou Sow mi le Le public et c'est le temps de l'action en a réalisation yi bëri nañu waaye xam ngeen ne doléance warul fi mun am parce que nag ma wax leen ñaari mbir benn bii moo di président de la république ci boppam néew na doomu Ndar doomu saint doomu Dagana doomu Podor bu ko gën xam département yooyu. waaw boo xoolee li ma jaaxaloon ma gën su meetee def may sootal nit a ngi lay reetaat dëgg la bañ la muy weex weex dara tolal. may ma jàkk Fatim Mboné xama bula nga man i gaar yow te kay